ci xaw balla mo nag melawoo ko yalla jagleel mu teel nek ku tekki teel a ñëpp ci jamono ndax bis bi mi wacc ci mbootu lu ñu tuddu ci wàcc mbaatu mo tolloog bi borom daaru bi sancloo daarul mën naan sëñ Tuubaa di ko sancloo fiñ ñu won guy tàbboo bis bobu la teenu daaru mën naan di bënn sëñ Tuubaa terbi yalla ko bopam yaral ko bopam mom Cheikh Awa ya yàq duru mu teel a tekki en 1900 la gane jamono 1922 la moto ca mag ña la Cheikh awbal da daana wax ne sëñ Tuubaa kenn gontema ya yaa duru am na bis mu ñëw njëriñ euh, di julli garaam bu bi mu sol mu bind aw kayit def ko ci moom Cheikh Awa Balla bi kayit di waddee sëñ Modou Farimata for ko fi gis Cheikh Awa Balla man Cheikh sama borom xamal na ne da nga gudd fan da nga mbarke man Cheikh Awa Balla sama borom xamal na na siyaare si sëñ Touba it bi muy dellu tawat ci yoon ñoo ndil ko sëñ Touba sëñ na Cheikh dara dëlu mboolem gaa yu baax yi ku ci nekk damaa séddale sëb cër ñaari yoon jox la tey tey ëllëg Cheikh daa ko sol lépp wàññiwul dara ci moom loolu rek dama ko booleel tey ëllëg sol ko Cheikh Awa am na sëñ Touba meloon sëñ Touba ne Cheikh day dama ko bëggoon a négee ndaw ñi waaye mënu leen a xaar ma wala ko ci mag ñi moo tax xër uur bu ndaw bi Cheikh dawu ji ci uur bu mag bi la Cheikh Awa Balla da xafaru sunu moo tax bi mu jëndee oto 1922 nga xam ne jëkkoom sëñ Touba dugg na ci wër këru njëriñ bi keroog bi mu ko jënd tubaab bi dane ko sëñ sa baay mu ne ko mooy sama baay waaye juruma mu ne ko Cheikh Antaay sa baay ko mooy sama baay waaye juruma Cheikh ne ko ku jub loolu Cheikh Ibrahima Fati maam Thierno bi moo ko ñaanal ko ku jub ko Cheikh Awa Balla meelawaat si xelal daal gis oto boobu sax keroog bi mu ko jëndee jëm gaawaan di jaar ci bi di ko noo bi ko maam Cheikh Anta séenee muy ñëw dañu ah tubaab yi oto bi kenn mënu jënd ci réew na oto bi ñëwee Cheikh Awa Balla wàcc mu ne ko ah yow sama xaalis bu mag gi rek ngay sàcc xaalis bu cerno mu ne ko damaa ko jëm mu ne ko bu la neexee sax dem ko neexee jàll sax kër Demba nga xam ne oto bi jàpp na ne kenn waru ko mën a jënd Cheikh Balla jënd 1933 mu sañ ci dëkk mi daaru ma naan te booba Cheikh Ibrahima fanweeri atam ak ñett ci la amul dëkk moom Cheikh Abdou te boobu jamono jafe na lu metti jafe na fii bi mu fiy beru nekk bi dañuy wax ne koo xam ne mu nangam nangam day sañ ci dëkk Cheikh Abdou sax yére wéetal yàlla di ko jaam ci melo yi mag ak doxin bu set nekk koo xam ne it doon xool ci alxuraan sax bu koy fekk dafay bari ayat yu tegtale mbiram bokk na ca Cheikh Abdou mu ne la woon Cheikh Abdou ci da nga junubuhum ani madaaji'ihim yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun bu guddi masaa jot ba guddi gi kooku ba nit ñi nelaw Cheikh day taxaw dina fi dama fa dem te nag kurus ba di dal foo ko fekk astaghfiruka yaa Ghafaar wa atuubu ilayk ba tuñ ñi di fekk di tax ci jëlal bi duñ sol wala abbaay duñ sol moom Cheikh Abdal nga xam ne lu nopp lu mu ko dal moo tax daana wax ne xaw ma àjjana daa amul teg dem jëm waaye fa Cheikh nekk kenn ruubu ko jëm kaw xaw ma teg gi nag daa moom de waaye kenn ruubu ko Cheikh jëm kaw daana wax ne lu ñuy am mën naa ko mu jàpp waaye bu mu xamee kenn du ma gën ma waroon xam na ne Cheikh loolu mel na loo xam ni loo xam ne suñu diine jëmu ko ak bokk jëmu ko yoonu murid jëmu ko diine jëmu ko demal ci bokkam ñi mu bokkal diine demal ci alaaji Ibrahima ñas muy Baye ñas mi nga xam ne àndoon nag moom dem Makka te xew-xew yooyu ci xewoon ci Baye Niass bi muy tagg Cheikh Awa Balla xoola ñaari bayit yi ni mu feese xoola ñaari bayit yi li mu ëmbee Baye Niass moo ci nettali ànd gi mu àndoon ak Cheikh Awa Balla waaye moo ci kan mooy euh, Serigne Cheikh Awa Balla waxoon melo woowu nga xam ne suñu borom jagleeloon na ko ak doxin wu sell nga xam amon amoon na melo Baye Niass dafa waxoon ne raafaxtu fii nuski mu salilu cerno mbakke daama shakira wajadtuhu fil lxilmi ma yëkki jabala lillahi durruhu faaqa nubula nee na ba may dem kama andal àndal moo ci Ibrahim nee na waaye giñ naa ci ne bu ma la doon misaal Cheikh Awa Balla ak melaw yi mu am nee na moo gën a lewet aw doj moom Cheikh Awa Balla nee na lewet gi nekk seexaw Awa Balla ak dal gi nekk Cheikh Awa Balla nee na aw doj melul ni Cheikh Awa waaye nekk koo xam ne kon yoon wi jëmu ku sanc Touba Ruuf Cheikh Sidil Moxtaar sanc Daaru Daaru Minam Daaru Wahab loolu moo tax mu sanc ay dëkk bokk gi ñi bokkal maam Thierno Ibrahim ak ñi mu bokkal Cheikhul Khadim waxoon naa bokk diine gi ñi mu bokkal lislaam ku ci nekk wàccuwaay bi nga joxoon seen Cheikh Awa Balla ak melaw yi mu amoon ci yow loolu it moo ko mayoon jikko ju rafet nga xam ne daana wax ne royteef mënta ñàkk waaye jël naa Serigne Touba ak Thierno def leen muy sama royteef mu ne su leen a nag waaye Cheikh Awa Balla baax moom fu ay tool dana ko dégg. moo tax digganteem ak ñi mu bokkal Serigne Touba ñëpp it loolu la mel la ko tàmbalee Cheikh Amadou Moustapha ba Cheikh Amadou Mourtada tey jii boo demee ci biir kër Serigne Touba ëtt yi da nga fay fekk turandoo yoo xam ne Cheikh Awa Balla lay doon boo demee kër Serigne Mouhamadou Lamine Baara tudde woon na ko ñaari ñaari doom dana ci doy rek Cheikh Sidi Moukhtar mi fi jóge bu yàggul nga xam ne ku ne xamoon bëggam Cheikh Awa Balla bëggoon moom Cheikh Ibrahim noonu la meloon it boo demee kër Serigne Fadilou da fa fekk am caatam. Cheikh Awa Balla sëriñ Fallou te sëñ Fallou daana wax ne Cheikh Awa la ku gore la sëñ Fallou daana wax ne Cheikh Awa Balla dafa gore dañoo bokk jamono mu am kun fa yakun am kun mu denc gogom ngir liñ bokk jamono maanaam melawu ku ñeme woon ak taalibe yi te xam boppam mooy Cheikh Awa Balla la koy tegtale Baye Cheikh Ndiaye mu baax ma lee am na bis may waxtaan ak moom ko miin Cheikh Awa Balla te bëgg ko mu ne dafa am ak tam xarit xam ne Cheikh Awa Balla yaram bi daal di bëgg mu mel ni kuy tooy mu mel ni kuy wàcce nee na bi ñu ko waxee lu mu ne du dara du dara de maanaam mu bees mi teru jinne yi demee kër Cheikh Mahmoud Mourtala yi dafay fekk Cheikh Awa Balla loolu li muy tegtal bi li muy wane mooy wane jëflante prophète bu nekk nit ñett lay jëf jëflanteel nit ñett lay jëflanteel ki nga mag ki la mag ki nga mag ñi nga mag ki nga ki la mag nga jox ko cëru mag waggal ko ki nga xam ne yaa ko mag nga yërëm ci di ko laay biire ak di ko teg ci yoon ki nga maaseel nga def ko di sa bopp loolu la sëñ Tuubaa jàngale sëñ Cheikh Awa Balla nag ko mës a féete mag ku ne jox na la cër bi nga moom waaye képp koo xam ne it yaa ko féete ndaw yërëm na la képp ku maaseel it def na la mu boppam naw lan ak xam wàcc fa la nekk koo xam ne it wax waxtoom yëpp da koo jox yàlla nekkoon murid sadiq boo xam ne ndigal lu mas a jóg kenn du ko ci kenn du ko ci man diggante moom boromam it kenn du ko ci man la ko war lépp yàlla sëriñ Cheikh Awa Balla yaa xabaar bulu teg ko doyoon na turam yi ñu koy dàkkantal rek muy yaa xabaar te yaa xabaar turu yàlla la kon saxoo gu mu doon saxoo astaxfiru ko yaa xabaar te tuub ga muy tuub du tuubu bàkkaar waaye nitu yàlla lu mu gën a jege boromam gaa yu baax yi nga xam ne ñi nekk gaa yu baax di jëf-jëf yu baax eh, ñee li jege yàlla ñoom dañ ñaawteef lay xasanat sayyi'atan muqarrabin loolu kon day tegtale melaw nga xam ne eh, ñooñu dañu koy am te di ko wane seen diggante ak seen borom loolu nag la yàlla jagleele ya xafaaru gi mu mel ni loola kon ñoom de adduna mësutee na tax a jóg àdduna mësulee na tax a jóg la nekkoon seen yitte rek mooy seen boroom tey jii yàlla may na ko jëf yu mel nii wàcc nga jaa jëf balay sa loo war a jëf jëf nga ko ci fekkaay dama ne loolu aw tagg woo xam ne daa dajale lépp mooy Cheikh Awa moom wàcc na lu ko waroon rek def na ko bu dee digganteem ma boromam l'islam juróomi ponk la gëm na yàlla mooy buur walla sa gëm na yàlla mooy buur taxawal julli woor weeru koor natt asif aj ponk yooyu yëpp Cheikh matal na kon bu dee ci diine matal na li l'islam digle ci aw meloon muamalaat yi nag nga xam ne diggante al ibaadatu muamala ñooy ànd jëflante bu rafet bi war ci diggante Balla na kon mayoon may na ko tey mboolem dëkk bu mu sanc la koy màndargaal mooy da nga fay fekk néegu yàlla buy tegtale loolu te kon yàlla boo ko jëfalee lu baax danaa la ko fay mu wàcc ba wàcc seen biir njaboot tey jii doo tuddee ci yoonu murit boo ne Cheikh Awa Balla rek ñëpp xam see Awa Balla sëñ Touba fonkoon ko am na bis mu ñëw njëriñ sëñ jël ndox may ko Cheikh Awa Balla maanaam mayal ko boppam ndox am ci ñooñ seen dafa rëy ci ñoom mën di di xalaat ci seen xel ne sëñ Touba ni Cheikh Awa Balla ñëw mu koy may ndox waaye Sëñ Tuubaa da leen tontu ci seen xel yi benn xalaatee loolu Sëñ Tuubaa da ne Cheikh de yàllaa ko teral te teral ko yàlla teral day dolli sa teraanga sëñ Mouhamadul Mokhtar mi mas na maa nett ca bayti ne sëñ bi bi mu ko jëlloo seetal googu ci moqalaas bi te Cheikh Awa Balla jël ko loxo yi lakk mu bank ko ci ginnaaw nëbb ko sëñ bi ne ko xanaa daf laa def aw meloom mu ne mu ne ko mooy sa wàll ci sawaru adduna ak àllaaxira ko àndal Cheikh Awa Balla sëñ Mouhamadul Mokhtar daal booba ñu ngi ci ndigg Cheikh Awa Balla kon noonu ñëpp ci lañ bokk daanaka ca loolee mooy sunu wàll nga xam ne sëñ Mokhtar bi moo ko nett ci bayti loolu kon dégg gi sëñ Tuubaa ak melo yi mu amoon sëriñ bi am na bis sëñ Maxtaar ne na mu ñëw ma ànd ak sëñ Fallu fekk Cheikh Awa Balla ànd ak moom ñëw ruq ruq bu xat la fekk sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko Cheikh noo leen def ba ak si moom xanaa di moytu lu ñuy tere rek mu laaj ko ne ko nu kër gi mel mu ne ko mi ngi fees dell sëñ Tuubaa ne ko cay Cheikh ka ma doon liggéeyal ba ma koy liggéeyal de yàlla kese rek a tax waaye séentu moo ci woon lii ne rongoñ gi na fa seet ba sotti ko daal di ci dënn daanu kon melaw mu amoon bu jege diggante mag yaa xafaara dundu moo tax tey foo ko tudd ci àdduna bi rek ñu xam kan mooy sëñ Cheikh Awa Balla mooy ay jëfam ay meloom ay taxawaayam aw doxinam loolu la ko yàlla faye tey li yoonu murid bi baaxoo mooy amul dëkk mu am ay dëkk am njaboot goo xam ne nii tey la ko tàmbalee ci seen maam Thierno mi nga xam ne yàlla fi yàgg ci wér ko gis jataayu démb bi ci kër Cheikh Mamadou Makhtar gis Cheikh Mamadou Makhtar gaynde gi nga xam ne waxal na boppam barki dem sëñ Moussa na ko sa bàyyi yéene ji ma ci mooy jox ko 100 millions at yi nga xamne ne gi fit bi ne ci mom ak bëgg Cheikh Awa ak bëgg kilifaam gi nga xamne ne de ba mu jaayantee maam Thierno moom way juroom di serigne way sëñ makhtar mom am na serigne ndax moy mam Thierno te te mat na nak te ci lamb ji la ko waykat do wax nako jitu jiitu ca kanam sa doomi bay dar la nga jëm ca lambi goor ya ñu yaay daniel ko suru sa bay gor sa ngi jambar jaa ngi ngi yaqo khilaf ak mam Thierno sigal nga sa bay kon day melni pencim bo fi xol juma ji nek amul financement mam mii sëñ makhtar ji waxtan waaye li genn kilifa daan wax ne mag ju mel ni maam Thierno waaye rakk ju mel ni xam benn Cheikh Mamadou Mokhtar amu fit am xam-xam am dayoo ñëpp ñëpp bëgg ko comme topp sa ginnaaw rek am na jikko joo mel ndax mën a ndax kat du ñëpp ko mën a jiri moom Cheikh Mamadou Mokhtar te ku ne xam na cëram suñ diggante ak suñu borom lu mu ñaan yàlla def ko lu mu wax suñu borom def ko ñi ko xam-xam nañ loolu ci ci moom ñi ko xamul nag mën naa am du seen muur waaye ñi xam loolu mu xam nañ kon nag yàlla na ko yàlla yàggal te yàggal fi njaboot gi te suñu dëgg dëgg taalibe bi Serigne Touba nu seey ci sëriñ bi dund ci sëriñ bi dee ci sëriñ bi dekk ci sëriñ bi ku yàlla féetale kilifa gu mat kilifa nga am ko dañ koy sant yàlla yàlla séddale nañu sëriñ Cheikh Awa Balla yaa xafaaru dunub kenn ku ne xam ko sëriñ Basiiru Coro dafa maa ma sax bis na ma Cheikh Awa Balla ne ko Cheikh Sidi Moutar fonke sax daaw buy ñaan sax léegi-léegi da ngay dégg buy wax ci suuf da ngay dégg mu ne barke Cheikh Awa Balla kon ñoo ngi gërëm Cheikh Mamadou Makhtar Diop moom it di ko sant ci taxawaay bi ak comité bi Serigne Sidi Mbacke ñoo ngi koy sant di ko gërëm ñaan yàlla suñu borom yeggaleel ko ak ñi mu àndal yëpp tàmbalee ko ci Serigne Khalilou Rahman mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot bi waaye di sant bu baax bàyyi sumul si la mi nga xam ne sëñ bi moom la def muy kon noo ngi leen di gërëm di leen jaajëfal ñaan yàlla mu boole ñu jéggal defal ñu tawféex ak ngëneel sant suñu mbokki jànkat yi fi teew yëpp